jërëjëf mbokk yi bu ñu sant yàlla jul ci yoon ci yàlla Mouhamed ñu réew mi di nuyu Sénégal di nuyu nag ñi nga xamante ni tey ñoom la ñu seqal kuréel gii nga xamante ni tey moom la yàlla dogal ñu ci yëngu muy wàllu làmb du nuyu président CNG bu baax a baax a baax baax mais du nuyu nag ministre des sports Matar Ba ah di koo xamante ni dañoo wax ni boo dee dugg ci kër bañ cee yéere xoos da ngay jaar ci buntu ba macha allah muy koo xamante ni si kenn la ci réew mi waaye kenn la ci ahlu làmb di nuyu Sénégal gépp ah di nuyu nag président Macky Sall maa ngi koy nuyu bu baax te di ko tatagal taw tawféex maa ngi lay nuyu bu baax te di la ziar tey nag ma am gan gu rëy macha allah gan goo xamante ni si yaakaar naa ne am naa fier pour jàkkaarloo ak moom am naa fierté pour wax ak moom waaye nag am naa fierté pour dëpp ko suma micro ñu waxtaan ci wàll wi nga xamante ni si tey mooy wàllu làmb ndax nag. yaakaar naa ni làmb bu ca ngar mi jeexee làmb amatul waaye bu ca euh, euh, euh, ambiance jeexee làmb amatul muy loo xamante ni war nañ cee waxtaan nag ndax fi mu toll nii ci réew mi ak fi tolluwaayu réew mi yaakaar naa ni mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu ci sunu kanam di su sunu ay xalifa di Alaaji Bekaay Mbay yàlla na ko fi yàlla bay yàlla yàggal ko fi lool mbay ndax nag bañalul kenn dara waaye am na fulla am na fayda am na jom waaye nag am na ñu bari ñoo xamante ni si tey bu ñu téyee micro ñu ngi koy jël ci moom référence kon Alaaji Bekaay maa ngi koy nuyu bu baax te di la jaar di la jox sa wàccuwaay di nuyu nag mère Mbaaya ak waa kër ga sama doom Modou mbay maa ngi koy nuyu ba waxte ko jaar ah di nuyu waa kër Saala Mata ndax nee nañ ma woon soo toogee euh, Alaaji Bekaay na nga fa tudd suñu tur ndax ñoom xëy na lañ tey yëg ñoom ñoo ko xam Alaaji Bekaay maa ngi lay jaar. Mbow mang ngi lay ziar bu baax di am mbégte yi toog ak yow. waaw di am mbégte borom xel mu rafet nga toog waxtaan ak moom. dafay neex. di la nuyu baax di lu waa Kajoor. surtout. ah di nuyu Malek. waaw Kër Malek Ndoomoor ak Minam ak. ah tey baax ñoom ñëpp ñu leen di nuyu. Kër salam bata Kër Saala Mbata. ñu ziar leen bu baax baax baax. ma am di nuyu tamit sang bi. surtout. ah borom tawféex mm-hmm. di nit ku baax mm-hmm. naa koy gis ci wàllu média ci mm-hmm. bari muy faj waaw moom it yàlla na ko yàlla taxaw. amiin ci barkeelu sa xarit docteur nag faj la man. yàlla yàlla ay wéral. waaw dëgg la kon ñu ñaanal ko kum faj yàlla na nga wér. amiin ci barkeelu jërëjëf. jërëjëf euh, kum faj yàlla na nga wér <clears throat> te loolu rek lañuy taamu. tey nag yaakaar naa ni sa xol sedd na ndax sa xarit laa toogal muy alaaj Bécaye Mbaye ah ñu war a waxtaan nag ci li nga xamante ni si tey mooy wàllu làmb ndax fi mu ne réew mi toll na foo xamante ni si euh, il faut mag ñi jàpp ci ndax li ma gis man xawma ko alaaj Bécaye ma gis euh, fi làmb toll ak fi réew mi toll ci wàllu difficulté ci wàllu ay ndok-ndok ci wàllu ay bagage yoo xamante ni amaana xëy na euh, nattub yàlla sunu boroom ñëw na waaye ma jàppoon ni est-ce que duñu dañ ne bu ndox tuuroo an baax des dañu rootiwaat cest bu ñuy rootiwaat mooy dañuy dem seeti mag ñi xool fan la ñuy jaar ak ban buntu la ñu mën a fëgg ba li ñu naal ñu jéem ko àggale ci ay système li ñu naal ñu jéem ko àggale ci xel waaye ci fit ak euh, euh, euh, ngar mi goo xamante ni amaana su ëllëgee mën nañ koo def ba mu jeex te benn problème du am muy fii làmb tollu li ma bëgg a wax mooy barki dem boo njaay diggante Balla Gaye ak euh, ki nga xamante ni mooy Bombardier diggante Siteu ak Papa Sow bi ci gën a metti tey ñu dem ba dernier réglage trois jours di combat ñu déclaré ni pandémie bi dafa troisième vague bi dafa xaw ak kawe léegi nit ñi def mooy non dañuy annule yëpp te ma gis ñu dem ba ci biir ma gis soirée yi dox ngénte yi dox baal yi dox kenn ku ne sabar yi mel ni tuleeg male lan mooy solution bu nu àggatee ci lu mel noonu yàlla bu mu fi amaat laaj bi kay waaw boobu jërëjëf xam nga àdduna dafa yàqu dëgg la li ko yàq mooy feebar bi dëgg la di covid 19 mhm. li mu lor bari li mu yàq bari sur le plan économique sur le plan sportif xam nga boo xoolee tubaab yi ñu ci bari ci ñoom toog nañu lu yàgg yàgg sax dañuy def sans public wii kuloo lañ ko tudde kenn du ñëw <laughs> ñooy football doo nga fay nekk ak àttekat ya <laughs> bon ñoom dem na nañu ba ci yàgg ñu indi vaccin mm-hmm. ñuy ñàkku mm-hmm. ñu dem ba ne ku duggati da ngay ñàkku mm-hmm. ñoom ñu ngi wut système boole ko nag seenum réew ñoom duggati ci da ngay ñàkku da ngay ñàkku boo indiwul paasu ñàkku doo dugg maanaam carte ba wane ne ñàkku nga doo dugg mais ñoom au moins ñu ngi ñàkku ñun suñu réew ñàkk a ñàkk bokk na ci li indiwaat ay deuxième vague ak troisième vague. Hmm? ñun suñu xel daa gaaw a dal. dëgg ñun bu nu demee ba ne ngay dégg ci tele bi ñu ne ah cinquante par jour nga ne kon jeena feebar bi dem na fekk na feebar ba demul daal làqu. dafa làqatu loolu bokk na ci li taxoon kilifa yi jógal na jëloon décision ndagamit décision ba àndunu ci woon ñun mhm. ndax décision ba dafa metti ndaxte au moins mënoon na noo bàyyi ñu reggale loolu ñu dese woon loolu foofu la loolu foofu loolu kayita la voilà loolu ñu dese woon man fa sa combat boo xam ne dem na ba ñetti fan ñeenti fan des ci mhm. bàyyi woon ñu yeggale ko moo gënoon parce que moment nga koy tere yaa ngi bàyyi bu àdduna yaa ngi jàll yeneen ak yeneen a ngi jàll mais nga taamu ci làmb kese dafa xaw a metti loolu jaaxal ñëpp ah ba pare ni lay tax làmb am nga ne bu mu am xam nga ñoom ne wunu bu làmb am de ñoom da di alkaati dootu fi ñëw déggal li yaa ngi dégg néewunu bu kenn bëri de danu ni séjour d'ordre dootu ñëw ci làmb xam nga làmb bu amul sécurité ah, mooy làmb bu mu am ah, am na manifestation xam bu amul sécurité ah, bu boîte de nuit mën naa bañ a alkaati waaw amul benn ay vigile rek lay am danoo silvissé ñoom fecc lañ fa. ñëw def li def dem seen yoon. mais fu mel ne làmb nga xam ne xëccoo la ak kujje. Mhm. foofa ak buuxante il faut mu am lu fa mën a indi. lu fa mën a sauver nit ñi loolu moo waral ah coow li bari. Mhm. ba nu arrêté làmb ji. Mhm. te làmb ji te dëgg-dëgg neexul ba neexul làmb si taag Papa Sow. léegi mat ñaar at. Ah, ba pare kenn kenn kenn kenn taxawulu ko. promoteur ba mooy perte. le plus grand c'est le promoteur et le lutteur. Mm-hmm. ndaxte mbër mi tamit mënut a préparé wu saa wu wu nga ne ko doo bëre. mu demaat wutaat lu mu préparé nga ne ko doo bëre. Oh. loolu normalement dédommagement waroon na ci am. Ah, xaw ma ban combat waaye Papa Sow ak Siteu. Mm-hmm. waroon naa am dédommagement. Mm-hmm. ndaxte doon na bokk ci luy dalal am xel. léegi nag nee na nu nu bëriwaat nu nu waat gi nag. na ko askan bi am nu mu ko jàppee. dañu ni novembre. CNG nee na nu lamb day ubbi waaye ci kaw Covid bi parce que comme intention bi ñu jël ni bu ñu yaakar ni. CNG wax na ni. Mhm. no octobre lamb dina ubi ñu yaakar lamb dina ubi du deug deug la ñoom seen bopp nañu xalaatat li am ni ba tax ñu renvoyer combat yi bu ñëwaatee ci octobre bobu dañ koy renvoyer waat. kon li ñu wara def moy ñaan yalla suñu borom jëlé ko fi. Euh, ñaan du ñaan kese parce que ñaan day am lu muy andal boy ñaan te teud di nelaw do am dara booy ñaan da nga koy jëf ni nga koy jëfe mooy nga dem nga pikiru ji waaw nga ñàkku nga ñàkku mm-hmm. te yi niy tere ni mooy indi feebar bi yëpp nga bañ koo def nga bañ koo def loolu mooy sauver nit ñi waaye bëgg a toog sa kër yàlla ma yàlla may million tey nelaw rek doo ko am <laughs> wala boo ko amee wasma xam ne mos ah. euh, euh, wërsëgu yàlla ñëw na ah, ah kon nanu xool li tax feebar bi jóge fi ñu def ko ba pare mm-hmm. CNG mm-hmm. nee na octobre bu octobre na fekk amatul troisième vague te indi lii indi troisième vague ñu bàyyi ko. ñu bàyyi ko. tubaab li tax ñu bàyyi seen stade ku dugg danga ngaa ñàkk. dëgg la. yow ñàkk woo. genn wàllu Sénégal waxuma la genn wàll li ñàkk matul 2 pour cent de la population. waaw matunu 2 pour cent ba pare ku nekk yor sa làmmiñ man du ma ñàkku mm. boo ñàkkoo boo jëlee téléphone bi boo ko ci tegee mm. après du wàcc. Mm. kon ñàkk bi baaxul. boo ñàkkoo après sa mbir day def ni am na feebar yoo xam ne ci ñàkk wax la foofu dañuy wax rek. Mhm. wax jël naan ko barte jëf. dëgg jëf gi mooy ñuy def di def lii tax ñun bu làmb ji jotee ñu war koo bëri. war koo bëri ndaxte xale yi ay jàmbaar la. dëgg la entraîné nañu sonn nañu. promoteur ba sonn na. Mhm. CNG bi sax sonn na. wallaay dëgg kon nag nañ def lu ñuy sauvé. Mhm. jërëjëf ñu def lu ñuy sauvé kooku mooy El Hadj Bécaye Mbaye euh, première question bi di question boo xamante ni si lim ci wax leer na. ndax il faut yàlla yàlla bay sa tool li nga xamante ni si tey moo ñuy sauver pour ñu mën a réussir loolu il faut ñu respecter ko jël mesure barrière ba pare ñaan yàlla sunu boroom yëf fi jóge fi waaye nag ndeysaan euh, metti na Pape Abdou Fall maa ngi koy ñaanal sunu borom suturaal ko yokk ay mbiram su ma ndeyaay Gaston Mbengue maa ngi koy ñaanal sunu borom yokk ay mbiram ti barke yonent Euh, ma gis kuréel gi nga xamante ni si tey mooy kuréelu mbër yi alaaj Bécaye il faut ñu waxtaan ci pour yee xale yi mais il faut ñu waxtaan ci pour gindiwaat xale yi nga xamante ni si tey ñoom ñoo nekk ci làmb ji ma dégg Balla Gaye bërkiteem bu mu wax lu am solo xëy na ndax nag euh, euh, loo doonul taalibeem mënoo doonul sëriñam seen kuréel gi ñu créé ci wàllu association yi xale yu ndaw yi ci suuf ñoom dañ koy critiqué. gisuñu ci seen bopp. waaw gisuñu ci seen bopp. ñàkk gee gi ci gis seen bopp euh, ci li nga xamante ni tey moom la ñu waroon a bokk ñoom ñëpp te xam ne naar euh, kañ ak Washington ak ku xombal moom kañ kañ la rek te comme yàlla dogal ni ñoom ñëpp ay mbër lañu ñoom ñu nekk seen kanam ban solution la ñuy def pour xale yi ñu iri leen. jàppale leen ba ñoom ñu mën a gis seen bopp ci kuréel googu ndax damay gis ni muy promoteur muy mbër lépp lu ñu créé ni dañuy ànd pour bokk ndey bokk bàyyi bu ñu demee ba ci biir yëf fi am yàqu-yàqu. dëgg fu mu amul dara du dem. ala kulli man bokk naa ci ñuy wax xale yi nan bàyyi coow li dem bëri waaye dëgg la. man bokk naa ci ñuy wax xale yi nan bàyyi coow li ñu dem bëri ji. waaye xale yi bàyyi coow li dem bëri ji mag ñi def dëgg. ñay ñooy ñooy woowee VIP te Gris Bordeaux jiite leen nañ def dëgg. xale yi ñu ne Gris Bordeaux warta jël décision moom kese. voilà kuliyal. di def li ko neex. waaw bu waree joxe xaalis mooy jël yi dem mooy def loolu waxuñu ko dañu ne na am transparence nan leen di ba xel du fu nu war a dem ñu ne VIP yi rek ñoo fay dem nañu jël ci VIP yi jël ci xale yi boole leen. man ah. loolu laay xalaat Gris doo na xam ni li mu am benn mbër benn président mbër mosu koo am am consensus tous les lutteurs ñu ànd ak yow amu fi woon. déedéet Tafa Gueye amu ko woon. Manga amu ko woon. ñi oh. ko mu Kayre amu ko woon. ñooñu ñëpp biñ ko jiitee du ñu am yenn mbër yi. Gris doo yàlla dimbali ko ñamu bëri na ñëpp a ci biir Balla Gaye mm-hmm. wóolu na ko Modou Lo wóolu ko Eumeu Sène wóolu na ko mm-hmm. Bombardier wóolu ko. ci woo téléphone jël ko. di dem seen kër di wax ak ñoom te teew bu bari jotee ñu toog reyante kon moom ci boppam na xool boppam hmm. na tàllal loxo xale yooyu bu mu leen xeeb na leen woo ñu na bu mu leen xeeb hmm. waaye xale yit buñ bu yóotu lu mënta ne nan xam seen bopp man sama xalaatu bopp hmm. mooy ñu dem bëri ji entraîner ji wax ci amul njëriñ Modou Lo bi muy toll ni ñoom ci mba làmb daawoo ko dégg muy wax waxee association. nu muy def ba daan lay wër. waaw te ñaar mënta ne. Mm-hmm. boobu moom wax ji moom làmb ji mënta ne. Mm-hmm. xale yi nañu xoolaat seen bopp. Mm-hmm. man loolu rek laa ne xal waaye nag mbir moom buñ ko bokkee dañ koy pencoo. duñ ko paacoo. Euh, mbir buñ ko bokkee dañ koy pencoo duñ ko mais kenn du ko paacoo dama dégg benn litre mu meex lu mel noonu nii Balla Gaye bi muy toll fu muy toll ay magam nekk ci kanam. moom booba xool sax affaire association li mu doon xool mooy fa ñu ne mu fekk leen fa Modou Lo noonu Eumeu seen noonu waaye Gris Bordeaux noonu waaye nag li nga wax nii dëgg la comme du jikko jamono la te évolution bi nga xamante ni si moom la sunu borom def ci ñun muy nii la fii la jamono toll kon na ngeen bàyyi xel xale yi ngeen bàyyi xel xale yi ma gis nag bi nga xamante ni si mooy suñu troisième question alaaj Bécaye bëgg ñu sàmm kóllëre ma bëgg ñu xool démb ndax démb tax ñu naan tey dama dégg ci njiinum Sénégal nga ci def lu am solo di ci wax lu am solo de passage maa ngi la ci nuyu bu baax ndax yaa ngi yee xale yi te yàlla dogal ancien reporter ma gis ci ay paa yoo xamante ni si ñu ngi ci làmb ji sonn lool muy diggante ñoxo baay ak Gaston Mbengue grand des affaires bu garaaw di affaire bu yéeme. waaw di affaire boo xamante vraiment Sénégal gépp en général rafetlu wunu ni ni diganté bi mel dal te yeen ñi nga xamanteni ni fi nek di mat lan mo ci seen xalaat ak nan lañ wara mëna def ba ànd bi continuer. jubóo dina jubóo di Gaston ñox bay yéen fi ne di am xalaat benen bon. <laughs> parce que damay wax mu ni ma def nañ 25 ans ma ak moom. ñoo baye ak garçon xoro wonu dañu rero lay dëgg la. ñak waxtanam ay. garçon ñoo baye lamb ji di ñew Balla gay ba bëggee ñoo ko bàyyi mooy yor micro central. nga ni ma. garçon Gaston wu la kenn garçon kërëb kërëb la am ñoo ko def ni xola paré na ca. boo woowoon Gaston léegi ñu <laughs> ko garçon yaak ngi ñoo ko bàyyi mu ne bàyyi mu parce que confrontation dama ko gis non non booba ñoo ko moo tooñ. ok ñoo ko warta dem ca télé ba di wax la ka Gaston dëy ca làmb ja. est-ce que du loolu la fii lay liggéeyee ci Bantamba TV ñoo ko sama grand la. jox sama mag la. est-ce que mais lu muy demee ca télé ba di fa waxi Gaston. <laughs> looloo jaaxal ñëpp. moo tooñ. <laughs> waaye waxewu ko woon dara. ndeysaan. waaw waxewu dara. mais Gaston gis ca boppam loola ca Gaston wax mhm. Gaston pare na ca man bëggumaa yàgg foofu parce que wóor na ma ne dañuy juboo dañuy juboo ndeysaan Gaston ah, ci sama xalaat boobu Ippo ak ñoxo mhm. mu ñëw ci Balla Gaye ak Bombardier parce que ñoom it danoo bokk ci làmb ji waaw et puis c' est pas parce que Gaston ak ñoxo bay danoo jote ba parce que Gaston ni bu mu dugg sama làmb non c' est pas déedéet dafa am position bu nu yore xam nga looloo tax làmb doy waar loo moom rek nga ne bu ko kenn def nii déedéet du noonu affaire bi dafa war a am règlement ñoo ko ah, bokk ci làmb ji de dafa am ñu leen di xaar ah, sax ci a Balla Gaye ngi dugg si ay ca ay ca yaa non ñoo ko moom keneen koo indi du saf waaw kaay ñu wax ah waaw <laughs> mais làmb am alaaj mën dem wuti ku la neex mhm. nga jëli ko gis naa fi promoteur bu indi Boubacar Diallo pour mu yoral ko micro san looloo jaaxal ñëpp keroog ah? pourtant ñëpp a xam nga ni Boubacar Diallo mënut a yor. déedéet ñëpp a jaaxle nag dëgg neexul. man mënu ma ko. Mhm. man. waaw mënu ma ko. Mhm. man ca télé ba laa ko mane. mais télé ba bu ñu tamit gis nga. waa kay ku nekkal fa nga mane. ok Boubacar Diallo xam nga ni keroog bi ko waa ji indee. foofu ci télé bi wax nga ni la doon jéem a. réer mais ne. ñëpp ah, ko. am na ñoo xam pas fay la ñu indi. mënu ko. kii nga et puis bu nu bu nu bu nu bu waaw ku nekk la nga man jël ko. dëgg la grand combat événement Gaston Mbengue mën na ko. wallaay la. dëgg sponsor. Mhm. yëkkati iya, làmb. waaw ah xaalis bi dugg. mbir yu mag yi bëri. mbirama. Mhm. Mhm. xale yu ndaw yi gis seen bopp. mbirama. Fallou Ndiaye. ak la ma man te combat yi nga xam ne combat yu neex ya ndaw yooyu bëri. waaw moo ko moom. waaw sëñ Modou Niang. xale boo bëgg a gis. mu feeñ demal ci Modou ku nekk ak la nga man mm-hmm. ñoo xa bàyyi Ipo ñoo moom micro central. ala loolu la yàlla de. Pape Mbaye mi ci géej way. ndeysaan waaw Pape bu sëñ Moodu ñaari gis nga nam koy. Ah, walaay dëgg la walaay. ku nekk ak ma daal di saf sëñ Moodu ñaar saf Moodu sëñ Moodu ak ma dooki mu mu mu mu caaroñ. waaye waaye bu Gaston di tëgg ñëpp taxaw il faut ñoo ko bàyyi la. Ah. ak yeneen combat yi tamit il faut ñoo la nit ku nekk la mu Gaston c'est pas parce dafa joteeg ñoo ko bàyyi mu ne ko non non doo dugg sama làmb déedéet tu noonu de. Mm, mm. Ablaye Wade. Djibo Ka tëj ne ko ci kaso. Mm-hmm. Ablaye Wade génn yàlla dogal mu nekk président jël ji bokkaa def ko ministre nit ñi nañuy jàng. wallaay dëgg la. ay ci adduna wallaay wallaay bu demoon ba nekk président xool jibokaa ni ah jibokaa mi moom a tëjoon ca événement. waaw 16 mars eh, xaw ma 16 février. Ah, dama koy jàpp. daa non daanu du daanu. parce que léegi déjà njariñam yow dootu buur bi daa dem di rëbbi. Mhm. ànd ak adjoint ñu dem buur bay fett dagg loxo. adjoint bi ne ko léegi de xéewal la buur ba mer jël waaja def ca kaso ba eh. ci suba ga moom muy dem di rëbbi ñooña jàpp ko sauvage ni ku jàpp nan lay rey lekk la eh. te jàpp nan buur ay mbay ñu sanga buur ba war a rey buur xool ni buur cëram wàññeeku na te ko sa cër wàññeeku kenn du la rey oh. ñu baal buur buur dem ca kaso ba fekk fa waaja ni ko génnal waaye gis nga ko lii de xéewal la mu nettali ko mu ne ko waxoon naa la ko xéewal la nit day yeewu ay mbay adduna kenn moomu ko yàllaa ko moom dëgg la Gaston moom moom les grands mhm. événements nangu noonu ala kulli haal waaye ah waaye na jël les grands événements mais mhm. micro central mhm. les grands événements non non ñoo ko bàyyi ak Ipu Ngari Ipu kenn mus ko loolu bu ko bañ boo xuloo ak moom it yemal ca xuloo ba waaye bu ko ne bul ñëw sama yow kenn ku man dootuma ñëw sa làmb ñu xuloo loolu xuloo la juboo am na te maa ngi ñaan Gaston te dinaa dem ci Gaston. Mhm. daa tukki ba ñëw may dem ni ko ñoxo day ñëw. Mhm. te bu ma ko waxee mu def ko. dëgg la. gas day may cër. gas am na xërëb xërëb <laughs> na ca. est-ce que xam nga lu ma jublu est-ce xam nga ma jublu ci lii. Mm. dama xam ni yonent bi neen àndandoo yërmande la tàqali ko mbugal la te man xam naa ne mën nga ci dara question bi li tax mu ñëw looloo ko indi. waaye la la ma ci doon taamu tontu nga ma ci mooy dinaa dem ci garçon dinaa waxtaan ak moom cay fex TV sama mag gii xaman naa ni su ma toogee ak moom lu ma bëgg ci moom danaa ko am bay ah dernière question bi nag mooy lan moo di dama gis alaaj euh, bi mu dalee def affaire lamb macha allah yàgg na man dafa am lu am benn gàllankoor wala benn naqar bu ndaw bu ma am ci ancien gloire ancien reporter ancien journaliste ma gis ni Alaaji Bécaye Mbaye personnellement Bantamba def na ci loo xamante ni si yaakaar naa ni ab Ablaye Naar Samb defu ko waaye Alaaji Mansour mbay defu ko waaye nag mag ñi fi jaaroon muy Moustapha Ndiaye defu ko ma gis ni boobu ba léegi gisuma kenn koo xamante ni def nga réaction ci xalaat bu rafet bu jaadu bu neex bi mu indi ba Père Mbow wala Mbow rakkam am inspiration wu war a mën a téye micro toog jàkkaarlook askan wi waxtaan ak ñoom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba yëf yi yaatu lool te musuma gis mukk kenn ku taxaw ci mag ñooñu fi ne dagg ko ci alaaj bekaay ñu xobbaay ipongaar yi magi journaliste wala magi communicateur kenn ku taxaw décoration jox leen ba aduna bép xamni nañ leen ndax lu baax li ñi def ci réew <laughs> mais non population baa lay bu jot la mm-hmm. ah, gis lu def décoration mais mais mais mais dama bëggul ki nga war ko teral baye ba mu dem ngay xeleuf xeleuf ci loolu grand loolu dama bëgg ñu ñu insister ci. wa c'est-à-dire ñun du ñun ñoy wuti décoration. décoration weesuwul ñu ñëw ñu jox le micro d'or. Mhm. jox la calebasse d'excellence. Mhm. ñu jox la malaw d'or malaw d'or bi ñuy joxe wa mhm. ki di ko joxe man lañ ko jëkk jox ci reporter. dafa war a leer nak ñu bari comprendre ñu. micro d'or man lañ ko jëkk jox ci reporter. ok.

waaye dafa am ñoo def dañoo def dañoo xeex chômage Gaston dafa xeex chômage. la waaw pire. dafa xeex mais baax liggéey bi booy xamuñu lu dul làmb. non pire nga dugal ci kër 60 millions. wallaahi 80 millions. wallaahi 100 millions. mais yaa ngi xeex chômage. gis naa ci mbër moo xam keroog ba mu ko jox 15 millions ni ko kër laa bëgg nga jënd ko booba mun a am 40 mille. waaw mais loolu loola mu def noonu loola li def ko Aziz def ko sëñ Modou def ko sëñ Modou Niang il mérite chevalier de l'ordre national mais ñooñu la ñu war a décorer ndaxte danoo fekk fi gouvernement bi tële ñu réussir ko. gouvernement bi mënul woon ci banlieue bi dara. benn xale mënu laa wutal liggéey. dara xale yu bëri ay millions dugg nañ seen kër te promoteur yee ko def. léegi bu ñu soxlaa banlieue bi ci la ñuy jaar. ci mbëri la jaar waa ka def loola. reporter ba wax ba kooka am buzz promoteur ba wax ba kooka am li mu am dugal ko biir këram waaye ñooñu doo leen décorer. foofu laay waxee. waa loolu mooy wax ji. ñooñu jëm mérité nañ ko. nan ko defaleeg reporter yi fi woon mais xam nga reporter yi fi woon genn wàll gi doon politique. dëgg la. te gars yi xam nga gars yi dañoo bëgg seen militant. <laughs> wallaay dëgg la. di décorer seen i militant ak ñi ak ñi leen faral. <laughs> waaw gars yi dañoo bëgg yooyu. mais yooyu yëpp réew mi la dina dina ñëw. ku yàgg ci teen bi baag bi fekk la dara jar te yàqam. bu soobee yàlla yooyu yëpp daal sax ñoom it ñu baax la ñu. Mm-hmm. Ah, ñu gërëm leen. yor réew yombut. surtout. yor réew yombul yombul yor réew dafa métti yaa yor malade bi yaa yor santé bi yaa yor sport yaa yor culture yaa éducation yaa yor lu ci nekk bëgg bu baax te amul benn président bu def lépp baax waaw loolu am na amul ci monde bi Reagan amu ko amul Mitterrand amu ko De amu ko kenn amu kon ñu nit fii ki fi nekk du fi mën a fexe ba def fi lépp lu mhm. baax mu wutu am na lu baax lu mu def waaye mën na noo fàtt mu ñoo ci ñoom saafaan muy Abdou Diouf di Senghor mhm. di Ablaye Wade kii fi nekk dina def li mu war a def li mu tollool li mu tollool bu fi jógee keneen ñëw ku yokkul yaa wàññi moo nekk ci reportage bi mhm. wax nga léegi tudd Moustapha Ndiaye mhm. deful bi mu fi def Moustapha def ko nangam def moom def na fi loo kam ka ko jiitu def ko fi dëgg la noonu la mhm. ku yokkul yaa wàññi saa woo ñëwee teg ci birig teg ci birig teg ci birig ba mu doonub état affaire bi noonu la kon yàlla na yàlla sàmm leen yàlla jubal nu ba lépp lu mu bëgg ci sunu réew mu am ci barke jërëjëf kooku ma doon alaaj Bécaye Mbaye tey nag ma doon waxtaan ak moom ci wàllu àdduna waaye doon waxtaan ak moom ci wàllu làmb am na argument yu bari yu mu développé waaye am na secret yu bari yu mu développé ci wàllu fan la ñuy jaar ba yëf jaar yoon fan la ñuy jaar ba mu baax ñi def lu baax gërëm na leen sant na leen waaye sëriñ Mountakha Mbacké daana wax ni nañ wax baax baax yi ndax xëy na ñi ko mënul jéema jaar beneen tànk bu dul bii ñu ne kon balay sa ñu ngi lay ñaan nga yàgg fi ci daraja yonent Yàlla Muhammad di ñaanal Seydi Aboubacar Si Sëriñ Bay Abdou xam naa dama koy jox suma micro eh, ñu tàggoo rek mooy mu doon tàggoo bu àndul ak ko ndax am na yeneen yu fi ne yoo xamante ni yaakaar naa ne war nañ cee mën a gën a waxtaan mu xóot waaye eh, njiinum Sénégal de man sama xol sedd na ci ndax fi nga taxaw di ye xalé yi di len tak ci yoon di len wax ni len moytu len xaxam bi moytu len ndëg kam fi kam la su ngeen fi duggé loru mbay yàlla na yàlla yok sa jam dama lay jox micro bi rek eh, ñu tago nga waxtaan ak rew mi tàggu Sénégal fi ci télévision bu mag bi di fex TV nga ma bëgg na nga ñaanal ma ci <laughs> ndax serigne Madoum sey borom tawfiq daf ma defal lo xamanteni ci si yow mi la ko defal ndax suma mag nga jël sport bi ak culture bi teg ci sama loxo alaaji askan boo ci teralee kenn teral ni ñëpp. dëgg la sa xarit nag la sa soppe la. sëñ Modou. waaw li mu def lu rafet la sëriñ Modou Seye. sëñ Modou Seye lu rafet la def. wallaay dëgg la te gis naa ko waxuma la sax lii mu def mais télévision yi sax mi ngi leen di dundal ndax mu ngi jël teraangaam di fa yóbbu. ala yóbbu ci télé yi. ñu teg émission. waaw te da cay fay xaalis. xaalis boobu mu ñuy fay am na salaire. bu te loolu ci jaamu yàlla la bokk. ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla taxawu ko. amiin. et yow nag yàlla nga réussir lii. ci dara te am naa yaakaar ni di ko réussir. ndaxte benn. Mhm. ñun géwal lañu. Mhm. ñun jarul ñuy dem sesté. waaw déedéet. waaw ñun suñu kër sesté la. ala kulli àll. <laughs> te kat journaliste du dara lu wax lu wax lu baax. ak fa nga ko waxee ak na war a waxee. donc wax dëgg. xam na nga koy waxe waaw ak fa nga ko war a waxee. rek mooy journalisme. ay dëgg la te. te ko loolu nag ñun ci boolu añ bi lan la koy waxee. loolu la yàlla dogal. ci ëtt ba lan la koy waxee mais du ñu yor fooy du ñu yor bi. du ñu yor fooy du ñu yor bi sunu borom la. waaw yàlla nu defal loolu. ay dëgg la te lu jàngal nan nu journalisme ba nu juddoo. loolu mm-hmm. lan nu ko jàngal. kon may ñaanal réew mi. Mm-hmm. yàlla def fi jàmm. amiin di ñaanal ndaw ñi. Mm-hmm. li nga wax léegi jeunesse mooy yor réew. man jeunes yi laa faral man sama yëpp ci jeunes yi laa koy. macha que danoo nekk ci réew moo xam danoo son waaw réew mu metti te xale yi war a jàll dem seen yoon. Mm. Mm. ah bu ko defee. Mm. nañu jéem a xool naka la ñuy def. Mm-hmm. ah ba ñoom ñu réussir. dëgg la ñu jàppale leen. dëgg la xale yi am baccalauréat te amuñu orientation. Mm-hmm. am na mm-hmm. xale yi am licence te amuñu liggéey. ndeysaan ndeysaan xale yi war a toll ci jàngi métier. bu ñu ko xeeb. am naa bac waaye jàlluma doo dem defi wuti métier. waaw am na ay mais léegi boo demee de la force intellectuelle yi fay def électricité bien sûr bu jëkkoon électricité da nga daan jàng ci taataa bi léegi ca école ba ngay dem ñu jàngal la ko li xew mhm. naka noonu ko mhm. yeneen métiers yi menuiserie mhm. yooyu yëpp xale yi am BFM laa am yow amoo dara te mën nga jàngi mën nga jàngi métier bo paree nga teral say waajur ah mécanicien dem nga jàngi mécanique. waaye bu nii sol sa pantalon xeet loola ah booy bi jógee njàmbur. waaw booy Ndakaar wi laay wax mm-hmm, mm-hmm. bi jógee njàmbur ñëw yol saagam toog fii. Mm-hmm, di jaay. ba am bitik am taabal. waaw am bitik am magasin. waaw jom la. kon xale yi na def loolu. nan jàngi ku jàngul ku jàngul ku jàngul. réussir oo dama nga jàngi métier. ku pexe pexe pexe du ñàkk. waaw demal jàngi métier. boo ko defee yàlla mën na laa mucc la yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal ci réew mi jërë ngeen jëf amin euh, jërëjëf kooku ma doon alaaji Bécaye euh, tey ma am nag mbégte ak contentement euh, di nuyu waa kër su ma waa dëkk ndax kenn amul lu dul fa nga dëkk borom taw tawféex li nga wax bu ko bàyyi nee dafa am benn immeuble boo xamante ni si tey bu ko tab bu ko dee da koy tabax mais kër Salambata la koy la koy tuddee ndax li ma bëgg gi ma bëgg sama dëkk dëgg la ku wàcc sab ànd bokkutoo te ki ma toogal publicité bi muy publicité na nga ñëw indi mu indi ko Bantamba TV jeex na waxal loolu wax ko ah, wax naa ko ko dégg ko waaw ah, sëñ Médou waaw sa publicité boobu mhm. indi ko Bantamba TV jërëjëf euh, sa xarit sa doomu ndey sa ki nga xamante ni da nga ko bëgg te yàlla rek tax euh, li nga xamante ni tey nag moom lañ doon tel si fii ma ànd ak suma caméraman yu ñaawul yi alaaji bekaay xale yu yaru xale yu ma déggal muy ci bi ak Baye Fall mi nga xamante ni tey moo jiite xale yi nga xamante ni moom liggéeyal rafet na muy guddi muy bëccëg foo ko wooyu mu ñëw yàlla na yàlla sàmm te jàppale leen eh, li ñuy wax rek lu duuf ci nag wi xajul ci cin li may nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu Pape Mama Fall eh, di nuyu Serigne Madoum Sey nag borom taw feex bu baax di ko nuyuwaat ndax nag ku yokkul yaa wàññi di gërëm ñëpp di sant ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm jërëjëf.